mbokk Sénégal mbokk amateurs yi dimanche 16 avril 2023 ñu ngi fii si rue 5 angle 8. rue 5 angle nag dafa bokk si Médina te Médina képp ko dégg rek sa xel dem si ASC e bu mag muy ASC e Kusum. ñu créé ko 1974 mu am 5 trophées perte 3 trophées kon moom ñan la daan 89 moo dóor xandaalu final 95 mu dóor sanc ba final 2000 mu dóor Castel final mu ñëw 2005 dóoraat sanc ba final mu ñëw 2007 dóor Castel final. 3 coupes la perte xandaalu moo ko gagné 86 88 Efax moo ko gagné mu ñëw mu ñëw 2001 Castel gagné ko loolu moom mooy palmarèsam kooku moom mooy ASC Kusum comme na équipe bu mag la moo tax mën a xaar ma baaxee leen ko. loolu nag moom may parmale sa ASC Kusum sant kon boog balaa maa dugg si waxtaan bi am na benn champion boo xam ne moom mi ngi fi mu ñuy wax Bébé toj na toj na lutte sans frappe bi lutte lutte avec frappe bi tamit toj na ko kon boog Bébé Diène naa la. waa père maa lay fay ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di ñaanal yàlla sama papa fu mu nekk yàlla gënal ko fu mu jóge di ñaanal yàlla sama yaay ak bépp waajur jàmbur xam ñu des fii ba si kanam kanam di nuy sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax maa koy nuyu di nuyu waa Medina rawatina waa Kusum fu ma dëkk mooy fu ma fekk ni di nuyu waa café bi xam ma di nuyu ñi nekk sama ginnaaw ñoom tubaab xam ma ñoom laay si ñoom xam ma ñoom Assane ñu ziare fii nii café bi di leen nuyu yéen tamit seen site bi waa Sénégal maa leen di nuyu bu baax a baax waaw dama gis nii nga nekkoon ci ay jafe-jafe pour man dangay ngay dugg si lutte sans frappe bi delluwaat fa nga nekkoon parce que da nga daan ay ndaanaan yu bëri ay ñoom ngel jon Caaka Faye Mamoudi Ndiaye Ablaye njaay bu si rëg-rëg bii nga xam ne am na 234 234 combats 10 défaites la am te yow ci ñu ko daan si gal bopp looy wax si loolu waa sant yàlla nit moom xam ma xam ma di jégalu tamit xam ma waa dëkk bi yëpp di leen baalu àq muy suñu weer bu ñu nekk nii xam ma du weer bu sell di weeru koor xam ma di nuyu képp ku may jàppale képp koo xamante ni sama am di jàmm maa lay baalu àq ngeen baal ma àq ñu fekkee ko ay déwén yu bëri xam ma waaw loolu nit moom tànk yaay dund di dox problème ak banneex mooy ànd waaw te ñun yàlla lañu gëm lépp lum ñu teg dañ koy nangoo accepté ko waaw ñu xam na nii dafa jiitu suñu live waaw loolu la quoi waaw léegi nga jékki-jékki ma gis ñu jox la gàkku dëgg mhm. mu jaaxal ma lool. Mhm. ñu ne da nga bëggoon jeexal combat bi ci cinq minutes. Mhm. looy wax ci loolu. waaw gàkku dëgg man mbër la di maa koy nuyu à passage parce que man bu ma ñëwee sama retour bi xam ma moo ma njëkk may xaalis bu may yóbbul sama waa gàlle xam ma maa koy nuyu sampion la mbër la. at na noonu la man damay doon ñaan yàlla bu ma génnee sama retour am lu saf xam ma. te gàkku de booy doon jéeg si kaw yëpp moo doon freiné champion la te moo ma jiitu si làmb dama doon ñaan yàlla pour bëre ak moom waaw yàlla may ma si ndam nag waaw ndam bu seddu guy waaw ndax ndam moo ko amee jar na ko ndax arbitre mooy meilleur terrain bu yëkkatee sa loxo yow yaa gañe waaw dama gis keroog avant ngaa doon bëre ma gis Diène Kaïré ak Boy Kaïré ma ne ko booy bi dañ koy gëmloon na jeexal combat bi si cinq minutes bu mu bëreex supporter léegi yow noonu noo ko dundee. waaw ñooñu xam ma sumay papa lañu di nuy waa écurie bi yëpp di nuy Diène di nuy Mañi xam ma ñuy dem loon ñaari combat yu baax yàlla ñu ci may ñu si ndam seddu guy. waaw di ci ñaanal mbëru Medina yëpp ku si mel ni Serigne Ndiaye Forza xam ma ñoom Ibou Afio xam ma ñoom ñëpp maa leen di nuyu di leen bëggee rawatina 1000 pour cent Medina bi waaw mais man aw ma lu dul waa écurie Soumbédioune ak waa Medina waaye. mais dama gis ne combat bi yàgg te yaakaar mu woon ni combat bi dina yàggee noonu. waaw sport la ñu wax sport mun nga ñëw machinil mun nga ñëw gañe waaw mun nga ñëw daanu sport la ñu wax mun nga ñëw temps bi yàgg mun nga ñëw mu gaaw parce que dañuy pare lépp waaw loolu la quoi. mais moom ba mu ko seetsee dafa ne plaisir la doon bëree la bëree waale ak yow loolu moo tax combat bi yàgg. moom na xam lu mu daj ci làmb ji rek bañ a xam man nu ma daj ci làmb ji man su ma neexoon làmb ji bu ma toppoon samay encadrement wala samay médecin làmb ji saa du ma ko bëre parce que dama amoon blessure mais laajal tubaab mi toog sama ginnaaw dama ko doon nëbb sax dem nañ si médecin mu ne ma toog un mois bu ma entraîné barke Serigne Touba une semaine laa toog ma ne tubaab lii mënu ma ko damay dem entraîné ji ndax gis naa lu waa Medina nekkee sama ginnaaw ay mag génn kilifa xam ma xale yi ndaw yi génn damay tëdd saa xam ma may dégg booy di yuuxu bébé jeen bébé jeen xam ma loolu daf ma gën a yokk jom su ma demee ma sax damay fàttay blessure wallahi azim ma xam lu dëkk bi di ma yaakaar xam lu may xaar tamit ak sama retour gëj a bëri quatre waaw ma sant si yàlla bu baax na dugg naa si génn naa si alhamdulilah. yaa mais keroog dama gis ne nii combat yow ak Gackou 2 mobilisation boobu suma ko gis ba nga commencé bëre ba léegi. waaw loolu moom bàyyi naa ko sama loxo grand Kouthia ak ñoom tubaab ñoom Matar xam ma ak staff bi yëpp ñoom Tafa sama papa xam ma du nuyu sama papa Abdou ñoom ma mënaar xam ma ak sama grand faadaloo xam ma ñoom ñoo jóg ak ñoom seex Cheikh ne xam ma waa jàppoo ñoom Issa ñoom ñëpp ñoo si jóg xeex si pour ma xam ma mobiliser ko waaw loolu seen loxo la nekk waaw waa boo gisee ma ne la mobilisation mosuma gis même sa biir entraînement damay gis booy yi bu ñu jigee entraînement du lay gungee ba fa nga dëkk ñu nelaw di la génnal ay sarax ñu jël seen xaalis tamit dem si ay sëriñ di la ñaanal ngir yow waaw. waa làmb ji ñëpp ñoo ko làmb Medina ñoo ko làmb parce que dañ ma yàqamti woon xam ma dañ ma yàqamti woon te xam ma tamit loolu yombul jeunesse bi mag yi ñëpp foo ne bëgg a yéene la xam ma barki Serigne Touba yombul. man combat bi dañ doon woo nit saa wax combat bi sarax nii ak nii xam ma ñu doon génnee ko te duma si yëg combat bu mu jeexee lañ ma génnee facture bi laa wallaay waaw. kon ba nga paree si Gàkku 2 amul promoteur bu la seet si. waaw instant yii nii ñu bëri ñu may seet si mën naa am fii ak semaine bi lépp dina sotti incha allahu rabbi waaw yàggatul di wax waa Medina nañu waaj xam ma waa Gueule Tapée Colobane xam ma Rebeuss Medina bi yëpp barke Serigne Touba waa Darkare Cité Marine xam ma waa Tiwaan Pël na ñu waaj xam na ni semaine bii nii rek incha allahu rabbi yàlla dina ñu may combat. kon yow ñan asa ñu may proposé ku ne mais semaine bii nii rek incha allahu rabbi père dina mot. waaw di xaw waaw. mais si uh-huh. loo nga ma fàttali ko si ñan ak ñan nga daan ak ñan ñoo daan. waaw ci bëre man daan naa daan naa Leuz daan naa Lassander daan naa Ndiakhoum 2 ñoom Thiandoum xam ma daan naa Fourier daan naa Zarko 2 xam ma daan naa Lassander daan naa Tyson xam Fourier xam ma ba si gàkku de bëri na ko waa maa sama dix combat deux défaites laa si am. kan moo la daan. man càndum de moo ma daan ak Ousmane Gandigaar. waaw champion. waaw kon léegi yow lay wax ci site bi nga xam ne ni moom trois mois quatre mois yoo xam ne ñëwul ñu jox ma ko. loolu Sénégal moom wallaahi ñun moom dañ ko doon seetaan xam ma dañ doon seetaan ko bu baax xam ma di leen ñaanal yow tamit xam ma nga nekk doomu Medina xam ma di liggéeyal si site bi xam ma ñu ngi koy ñaanal yàlla xam ma mu doon ba doom télé. comprendre nga ndax site bu mag la waaw ñun ñëpp ñoo koy suivre waaw. waaw sa doomu ndey dama ko laaj nee na mobilisation bi keroog nga am prochain combat dina def tout ba mobilisation boobu gën a yokk waaw loolu la ñuy ñaan yàlla parce que gars yi dañ siy jàpp bu baax man de saa xam nga luñ ma sas entraîné na lekk tëdd nelaw bala wallaay azim ñii ñoo may gérer ñëpp booy sama grand yi ñooy gérer lépp wallaay azim loolu rek lañ ma sant entraîne lekk tëdd nelaw di profité di nuy tamit suñu waa saal bi xam ma waa immeuble Kébé di nuyu gérant saal bi muy njoogu ak sama kok su aas xam ma ñoom Pape ñoom Sakura xam ma ñoom ñëpp maa leen di nuyu waaw di nuyu tamit xam ma ñu caabi féetee ginnaaw xam ma na caabi féetee leen si kanam waaw di nuyu xam ma képp ku koo xamante ne am na nattu rek maa lay ñaanal yàlla mu mu mu teggeeku la ci luy gaaw di ñaan tamit ñu nekk si hôpital yi yàlla fëgg seen bopp waaw ba ñu mën a delluwaat seen njaboot nekkaat seen activité parce que réew mi xam ma jàmm la ñuy ñaan jàmm ak salaam loolu rek la ñuy ñaan si réew mi waaw parce que ñun ay jeunesse la ñu. Mhm. waaw parce que man loolu daf may jaaxal xam naa ni yëkkati ay ndaw yombul. Mhm. actuellement nii yow lan mooy sa secret bu boo jigee ñëpp jug. Mhm. sama secret mooy lu dul baax xam ma fuñ ma tegloo ma tegoo fa taalibe waaw samay raq ma jox leen cër ñoom tam ñu delloo ma ko ak samay mag samay papa ak samay maam man tey fii nii aw ma sens interdit fu ma romb maire yi paa xam ma samay jeunesse yëpp laay bëreel wallaay azim ñëw di la tooñ te man seen fukki dërëm ak seen cent franc yooyu ñoo may dundal waaw man lu may fayee ko si làmb du ma dundal waaw man ñoo man gars ñoo may dundal wallaay azim tey suma ma téyee xaalis xaalisu gars la waaye saa maay sama staff luñ ma wax rek loolu laay def waaw ku si mel ni sama papa ñoom duudu ñaan xam maa koy nuyu sama père Girane ak ñu may ñaanal ñëpp waa Touba xam ma père Mamadou Ba père Ibou Kama jaxaw Siin xam ma maa leen di nuyu bu baax a baax ak Ba Diop Touba xam ma koy nuyu bu baax may nuyu tamit sama mbokk pël Fuuta yi on jaaraama mi welti ke moƴƴa mi yi ko wàlli totol lankoon mi weltike moƴƴa billahi wallahi na nuyi na yurade kala ko ɓiɗɗo pulla fouta woni guina konakiri guina bisaw hamma popa dara kundara kammaɓe komi waɗi ɗo ina yurade ɓe ɓe fo e junto jurde timɓe madina kala ko jeunesse ɓuɗɗo pulla fouta no ko woni ina hiwrade o waaw kañum wate wa sande ñeeri koto jeego xamma xamma ak ñoom kii six avenir grand mamoudou maa leen di nuyu bu baax waaw di nuyu tamit momzu borom Suisse maa koy nuyu bu baax ak sama grand waa France ku si mel ni père Idi père Bamba ñoom Mbacke xam ma ñoom Aline ñoom ñëpp maa leen di nuyu waaw di nuyu sama jigéen ju baax tamit muy Ami Sadio. Mhm. waaw moom daf la bëggoon laaj benn question bu ndaw rek. nee na di li cent franc moom nam nañ la wax dëgg yàlla. waaw loolu ndax mu ñenn mosal fii di mos fii. luñ ma digal loolu laay def. Ah. waaw luñ ma digal rek loola xam ma tamit. bu njëkk ba man dama doon jël rek yeewu nii rek dëgg mbappar rek sol sama saak dem wallaay Azim du ma dem ñu may ñaanal du ma dem fenn. waaw loolu mën nañ ma ko seedeel. loolu moom sama kanam toog naa Boursine du ma bàyyi ma fenn ñoom Kéwél. ma toog nii ma ne Kalilu tey dégg naa tournoi bi te maa ngi nii nan dem te man mbër laa ma sànni ko saak bi Kalilu sama law yi loolu moo tax ñuy ànd ba léegi nii ñu dem ma jour boobu si laay daan rek rek sax waaw. waaw léegi looy looy wax si waa yi cinq waa xam nga tëjee ko wax si waa Médina mooy nañu jug dimbali ñu rek xam nga ne ñun ay xale lañu ay jeunesse lañu xam nga nañu jug dimbali ñu waaw ñu jug dimbali ñu bu baax waaw parce que ñun bu ñu jugee mbooloo daf ñuy jug topp ñu dëkk daf ñuy jug topp ñu xam nga yombul tamit ko waa ci jeunesse xam nga nit ñëpp benn lañu mais yàlla mooy tànd benn nit muy jiite te ñun bu ñu jógee xam nga ñëpp dañuy jug mais gars yi na ñu ñëw dimbali te yàlla tax waaw di nuyu sama nijaay bu baax du nuyu sama yaay maa koy nuyu bu baax. waaw wàllu billet yi keroog. dama gis keroog dama ñëw stade ñu nag gàkku deux ma gis plus de cinquante boy yoo xam ne nee na dañu ñëw ba fii amuñu fii waaw billet yi autorités yi ñoo yéex a jóg parce que ñun fii nii booy def nañ seen doole def nañ lu ñu mun man ay booy laa am ay grand xam def na lu ñu mën jënd nañ ay bolok laajal Assane Ndiaye ñaata bolok lañu jënd ci moom bëri na. Bamba waaw Bamba ñëw na jëndal nañu ay bolok. seet bolok lañ jëndal xam ma mbay ñu moo nin. Cheikh Ba Messi. Eh, Cheikh Ba. ak sama xam ma sama grand yi. maa ngi nuyuwaat encore une fois Fada Loof bu baax. waaw Fada moom dafa taxaw sama carrière jamono ji waaw di nuyu xam ñu mu sekkal business xama nga ku si mel ni international Pate Ciss Amath Diédhiou Pape Oumar Koliba xam ma ñoom Pécco xam ma ñëpp ñëpp maa leen di nuyu xam ma xam naa ni instant moom dafa jàpp am si lu mu nekk moo tax ñëwul xama ma xam ma ni instant ay koor gi <laughs> ñu bëri xam ma mooy loolu. waaw yenn ganaar yi bëri instant yi ñooy xam ma lijjanti seen bopp xam ma noonu la ko waa waaw di nuyu ñëpp waaw. di nuyu tamit sama sama booy bi Ibrahima Doore Brioche Doore maa koy nuyu bu baax waaw di leen nuyu waa Medina ñëpp baay ma kenn di nuyu xam ñu may jàppale si wàllu musique tamit ku si mel ni tubaab Kalilu Matar Laay xam nga Zilo maa leen di nuyu bu baax waa ñoom Tafa Cissé maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk sama staff di nuyu nag ñu fi toog nii ñoom Siyaaka xam nga ñoom Vieux ñoom Awa Ndiaye maa leen di nuyu ñoom ñëpp. waaw di nuyu xam nga booy fi toog nii ñëpp maa leen di nuyu waaw. waaw Marley mooy fi amul komba na ñëw ñu bëre kii Moussa mooy fi amul combat na ñëw ñu bëre comprendre nga tey bu ñu toogee fii doole bi day jeex carrière bi day jeex te ñun ay booy lañu dañu may chance tay jeune garaawul na ñëw ñu bëre waaw te yàggul tuuti nii rek incha allah sama combat dina taxaw waaw yàggul tuuti incha allah rabbi waaw. mais loolu moom dañ ñu koy nëbb munoo xam ndax Moussa Ndoye la wala Tyson 2 boobu ngay wax wala kan la. non sama staff xam ma la ñuy waxtaanal nii rek man dañ ma ko wax sama staff woo ma wax ma ko. waaw loolu la ko waaw mais yow bu nga sañoon daal ñooñu nga bëgg a bëreel quoi. ñoom laa bëgg a bëreel. waaw di nuyu si bu baax borom Suisse maa lay bëggee bu baax gaynde dundal yow. ah lu may wax si Bébé Diène Bébé Diène da ngeen ñëw tey si base ngeen ñëw ndax Bébé Diène fu mu toog nii la la njëkk a bëre fu mu toog nii la njëkk a bëre nga kër gii la njëkkee bëre mbapat waaw kon tey si baasam ngeen ñëw di la di la wax waa Mbinaan dañ ko jàppale ndax booy bi lu nekk ci ginnaawam dafa am ay charge yoo xam dafa nekk ci ginnaawam te charge yooyu da ko war a effacé kon gars yi nañ gën a nañ ko gën a jàppale ndax booy bi barki alxuraanu karim kii bu bëree bu bëree bëree bëree man lu mu bëree gum gisaguma ko waaye su bëree dëggantaan non mbëri diñ ko téye waaw loolu moom dëgg la man bii di ko seetaan te nit sans bi ma gis ni muy tëralee gars yi Adrien Senghor man dama ne booy bii du nit. ndax man ak moom dañoo ànd fu ne fu ne maa ko njëkk a taxal ngemba. ndeysaan mu ta mu bëre. kon su ma nee bëreegul lay am na fu ma ko teg. dëgg kii du bëre may tiit mais min naa nag dëgg fii ni fi xaw làmb dafa xaw a des quoi. ndax moo tax du moo tax jàppale bi xaw a des mais gars yi bu ñëwoon xam laamu dëgg di jàppale booy bi nii barki Serigne Touba roi des arènes bu ñuy séntu dañ koy am billaa walaa taala loolu tiituma si sax ay roi des arènes yi nii tiituma si ma xam naa sama mbër bi dama ko indil force incha allah si kàttan suñu borom maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ku ci nekk sa turak sa sant waaw di nuyu waa Médina yëpp Gueule Tapée Fass Colobane HLM ñëpp maa ngi leen nuyu di wax rek ñun suñu mbër bii nii du mbërantu kii mbër la te champion la te barki Seydina Mouhamed gars yi bu ñu nga jàppalee dinañ xam ne kii champion la. parce que Bébé Diène du Bébé Dièneu Médina Bébé Dièneu Sénégal la état la dafa diis parce que état nag boo ko amee da nga jàppale nga xam ne moom moom lu muy war a def yëpp def na ko. essayé daal combat moo des te gars yi nañ ñëw bëreeg moom gars la la ñuy ragal ci moom. mbëri ñëw leen ngeen jël ko kii xale la demagul fenn jël leen ko mu daan leen dem yoonam. Bébé Diène mën naa la ko wax adversaire am nii nii nii nii Moussa Ndoye na mën a taxaw bu bëreeg moom Moussa Ndoye yaa ngi may dégg amoo combat bëreel jëlal boy bi nga bëreeg moom moo gën daw yeeg kii marle géejawaay Bébé Diène dugg na fa daan fa ay nit jël ko mu bëreeg yow moo gën ngeen naan ko ay booy bi booy la ak yii booy la rampe na drapeau chef de jël na ko lu mu def lutte simple ñëpp xam nañ ko daan fi ay rëg-rëg bii ngeen di dégg tey mu bëreeg Sa Thiès kii tey ku ko bañ da xamul làmb kii dañ ko war a jël mu bëreeg ñëpp barki sëñ Bamba di nga xamal ne nag moom carrière moom moo ko mën a jàpp moo ko mën a sàmm te moom doful dina jàpp ko xam na li ko war bu baax te mi ngi koy def te borom baax la boole nga ko gisee nii ñun ñooy moromam xale bu ndaw la ñun ñii ñooy moromam ñun ñooy ànd moom mu booy yi la man sa maa xam mag du génn naan day dem wëri fenn jour boobu dama ko wane ko kañ dem soirée xam la la mu wax booy man canta ya Baay Faal la barki sëñ Bamba moom soo ko seedee nga xam ne moom Baay Faal la moom yenn soirée yi ak yenn yi du fa dem xoolul sax loolu parce que Baay Faal la te day dëggu ci moom te loolu noonu nag ñi ngi koy gën a ñaanal mu gën a yokk ci doon Baye Fall boobu noonu. rek di wax waa maintenant nañ ko ñëw jàppale àdduna sax laay wax na Bébé Diène boo leen àndee génn da xam ne du waa maintenant kase ñoo ko bëgg comprendre nga boo leen génnee dangay xam ne kii foo dem ñooy gën a xër kay ñoo la si gën a xër si moom comprendre nga di wax na si ñëpp ñëw jàpp rek di xam ne xale la xale boobu avenir la bëre baa ngi fa jom baa fa fulla bi fit bi lépp mi ngi fa comprendre nga nañ ko ñëw taxaw rek. liñ gis bi passé bii di ñëw mooy raw di leen wax nañ ko xaar après koor gi ñëpp ñëw jàpp ci comprendre nga léegi dina am combat incha allahu rabi. il ñu sànni si kàddu waaw parce que mbër moom mbëru ñëpp la waaw du mbëru Medina rek ñëpp a koy senegal Sénégal yëpp waaw monde entier sa lay wax waaw yaa gën a xam. waaw noonu la fa demee quoi xam nga rek man moom mu ma sa wax ju bëri mais xam nga di ko ñaanal yàlla rek waaw. yàlla bàyyi ko fi quoi. waaw rek loolu laa ko doon wax. mu ne ko yëkkati ay ndaw yombul. waaw moom lan may secret nga xam ne bu jigee ñëpp jug parce que mobilisation bi gis keroog mosuma ko gis. waaw dëgg la parce que xam nga rek mbër la quoi dafa mën li muy def te xale la day prouver quoi xam nga sénégalais tamit dafuñu gis. waaw parce que ñun tamit dañ koy suivre dañuy dañuy gis bu baax li muy def Sénégal ñëpp bëgg ko waaw. xam nga rek lu mënul ñàkk la tamit xam nga sénégalais bëgg ko parce que dafa mun lu muy def waaw. waaw sama diggante ak Père Kairé mooy entre papa ak doom la rek. waaw ndax maam sama papa la tey bu ma xamee làmb si lu bëri si moom la mais maa ngi xam ma sama père la sama lépp la maa leen di ñaanal jàmm famille bi yëpp du nuyu tamit xam ma mbay guy gi sama waaji yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy di nuyu mbaru bawol bool yëpp ku si mel ni ñoom kéwél ñoom bursin xam ma bursin am na tamit combat yàlla na ko yàlla may ndam yaa comprendre nga mooy yoon bi laa wallaay. dégg naa moom moom ak ñaabu ndaw la bursin. waaw bursin moom ak bu ndaw la waaw moom ak ñaabu ndaw la. waaw maa ngi ñaanal yàlla mbay guy gi yàlla na ko yàlla may ndam bu sedd guy waaw di nuyu tamit sama grand Lamine Lamine Lamine kii <laughs> Lamine Lamine Gassama <laughs> waaw dañ koy tëf sere sama grand la ko waaw maa koy béyee bu baax séeré dundal <laughs> waaw